asalaamaaleykum mbokku vingt 24 actu yi ñu ngi leen di nuyu di am mbégte itam di janoo ak yéen saa su nekk comme niñ ko tàmmoo rek di defee ak yéen lépp loo xamante ni rek da di information soxal bi réew mi wala sax biti réew dañ leen koy indil di leen ko faram-fàcceel comme ni ñu xamee rek la fiabilité de l' information euh, notre quotidien tey nag équipe bu 24 actu yi dañoo daal di ñëw rek fii ci jannatul maxwa euh, ci wetu marché bi nag li fi xew rek du leen lu dul bu métti méttee métti suñ ko waxee rek xel yëpp de daal dem ci li nga xamante ne ni rek moo di ab lakk waaye nag boobulee lakk nag daal nay jur li nga xamante ni rek moo di ay dégâts matériels ndax ni ñu ko xamee rek moo di cause bi nekkul lenn lu dul ay matelas yu doon lakk mu mel ne rek dafa nekk benn entreprise bu nekk rek ci benn koñ di amal nag ay travaux ci li nga xamante ni moo di ay matelaak yu ni mel moo daal di nag tàkk rek ba jeex tàkk ginnaaw rek bi ñu sampee rek suñu micro bëgg koo jëmee rek ci askan bi ngir ñu indi ñu rek ci ay leeral jëm ci boobule lakk. lakk gi nag li ma ci am mooy ci ban bii laa toog maa sama benn baay Assane Ba ak sama doom bi ñuy wax aatu gone yi nekk ci biir ñiy jël liggéey ci biir di sëgg ji jël mat lay teg nun ñoo leen daw leen sawara leen wër nag ñu doog a daw génn ne ñoom ñu doon liggéey sax yëguñu sawara wi ay mat laa la ñuy liggéey ay tapissé la ay menuisier mooy waa tapis rouge waaw yi ngeen di dégg ñoo ñoo bi ñëwee maa leen dalal place yi ñoom ak dépôt yëpp maa leen ko luyeel waaw ñu jikki-jikki rek di sawara yu jóg fekk booy ñu ngi ci biir nag waaw ñun ñoo ne leen daw leen yéen sawara wi nag ñu doog a daw génn ne ñoom gisuñu ko woon sax man ak góor gu ñu wax Assane courant bi am benn fuy pete wala foofu ma fekke ko yëguma ko bokk waaw installation yi kay baax na man hmm? yi xaw nañ am tuuti nag retard xam naa ñàkk positionné bi mën naa am ñàkk jël position la ci la bi ñu daataan nag dëkk yi moom def nañ luñ man moom avant sapeur yi ñëw tàng nañ ndox bassin ba dañ doon tàng di tuur ma ubbi wan bi muy xel li après nag ci la sapeur yi doog a ñëw bi ñëwee côté bi mu tàng mënuñu kee kii ñu jëli beneen face bële fay foofu ba mu dëkk fay ñu doog a ñëw na eggale fi waaw waaw ah non non c'est pas normal lii Touba kay mooy dëkk yërmande rek mais lii warut a mën a ne ñu dendal moom lakkuñu xanaa yàqu yaa mbaar yu daanoog yooyu rek man ma gën a na jeget lépp fii la awoon ngelaw li waaye yàlla def na ci sutura ak dëkk yi dëkk yi nag moom jàmbaar lañ trop dëkkandoo moom kenn amul fayam waaw ku yóbbu boo amee dëkkandoo nga respecté leen di leen ñaanal di def doxeek ñoom lu rafet parce que kenn amul seen fay man fi ne sawara yi man dong la uboon ci kër gi man mel na man maa jël sama kii goro yi dugal ci néegi tëj tëj néegi bagage yëpp maa ko dugal tëj néegi coupé compteur toog di tàng ci ndox mi di tuur fii waaw entreprise yu mel ni moom fi Touba day dëkku yërmande waaye dafa war di nekk fu àlle beru fa moom kese waaye warul nekk ci biiru nit ci milieu bi li ci yàlla doolee sutura mooy mbedd yu mag yi waaye bu doon mu sew kër yëpp ay tàkk mbedd mee fu neex waaye tanga ndox jaar mais su lool woon loolu gën a am maa ngi sant bu baax Pape Gueye la dëkk fii Touba Jannatul Mahwa waaw fii mooy jànnatul mboq waaye ci côté marché bi nga xam ne moo gën a siiw fii nii ci Touba à part marché Ocass mhm. waaw lakk bi nag euh, ñun dañu dëkk ci quartier bi euh, ay 8 ci suba dañu génn suñu kër commencé bëgg a dem chantier pour liggéey si gi yam seen tàkk-tàkk bi ci leen ñëw nag di xool après la ñu woo sapeur pour mu ñëw pour mën a intervenir ci affaire bi mhm. waaw cause bi nag xam naa matelas yi ñu fi teg la te matelas daanaka dafa am gaz kenn mënul xam maanaam tàkk-tàkk bi nit koo xamante ni peut-être dafa am lu mu laal ci côté safara loo xamante moo indi tàkk-tàkk bi mënuñu ko xam parce que xamuñu ko ko taal mais li yorta wóor mooy ñun li bëgg a wax mooy ñun ñu dëkk ci quartier bi dañuy interpeller directement ki nga xamante ni mooy Abdoulaye Ka bi nga xam ni moom moo yore maire Touba muy bàyyi xel ci yenn usines yi nga xamante ni bi ñoo ngi koy def ci biir dëkk bi parce que du yoon ko war nga xamante ni dafa génn dëkk bi bu sapeur pompier bu ñëwee dina mën a intervenir pour mën a fay lakk bi normal mais boo xoolee sapeur bi mu ñëwee léegi avant ñuy taal euh, kii fay fay lakk bi xaw nañu sonn parce que quartier bi mbedd yi dafa xat nit ñi xaw nañu sonn ba yor seen siwo di di fay yooyu te yooyu yëpp jafe-jafe la il faut que ñoom ñu bàyyi xel loolu ci population bi nga xam ne ñoom ñoo dëkk fii voilà waaw am na lu tuuti lu mu fi jot a yàq nag mais comme que yàlla def na ci jàmm rek sant yàlla mais comme wax nañ a bàyyi xel parce que quartier bi dafa a xat te usines yu mel nii war nañ ko mën a waaw luñ ci waaw luñ wax lu nekk rek mën nañu wax safaan ba parce que xamuñu ci lu bari mais génn nañ daal ay 8 heures ci suba siggi xool seen tàkk-tàkk bi mu xaw ñu jaaxal ñu ñëw xool woon nañ sapeur pompier mu ñëw intervenir yàlla def na ci jàmm tey ok waaw ñoom ay matelas la ñuy fabriqué fii di ko jaay fii nga xamante ne bi mooy ci Touba ci région de Diourbel voilà mu nekk liggéey bu am solo rafetlu nañ ko parce que lu yokk la te dina enrager ñi nga xam ne ñoo ngi def chômage mais nan ñu ci dimbali pour que risque la lii ay 10 heures yooyu daal ci la tàmbale ndax 9 euh, heures dem bu mu jotee fekk na soxnaam si dem marché man ma desoon bi toogoon di jàng léegi may jàng ba ci kanam tappiru fekk ñoom xëy nañ seen baas bi ci la jekki jekki mu wàcc ci suuf ndekete boobu mu ngi tàkk kër gi nag mu jekki jékki di xeeñ courant bi sote ma foog ne courant bi dafa coupé may daw di génn ma ñëw fekk fii baas bi di tàkk ci suuf di wàcc ci laa daw di sentir ma coupé ko kuppe courant bi ci biir kër gi ma jéem a génne bagage mënu ma koo génne ma daw génni tombeek ñoom it ñuy ci la mbooloo mi daw ñoom it ñu yegg si ñoom ñëpp ñu taxaw ci biti. waaw lu ma yaakaar ne moo ko lakk na damay ragal ne fil ñu nekk ci biir ñooy maas rek mu lakk ndax ci biir am na ñi nga xam ne ñu ngi woon ci biir xëyoon nañ di liggéey ndax doomu aadama xanaa fu ngay suturloo doo ko jël nga taal ko kon damay ragal ne courant bi fil yi ñoom ñoo laalante rek ak ndogalu buur bi subhaanahu wa taala. lii lakk nii nag ay matelas lañ fi defoon ak ay salon yi nga xam ne ay photo yu ñu doon defar ñoom waa tapis matelas yi nga xam ne mooy matelas rosol ak matelas mer gàddu yi ñoom dañ ko doon liggéey di ko dugal fii ci seen baas bi léegi nag ak matelas yeneen yi nga xam ne dañ ko doon jël buñ defaree ba pare ñu jël ko def ko dépôt suñ paree ñu xëyaat ñu indi ko fii loolu yëpp dafa lakk ci biir waaw bu buñ xaymaa nag lu fi lakk moom bëri na lool mënuma laa ne ci xaalis nangam la waaye bëri na lool bari na lool ndax démb rek ci suba si wàcce woon nañ fi valeur ba nga xam ne moom seer na lool ay bagage fekkoon na ñoom ñu xëy ba liggéey li nga xam ne moom ay salon la ñu dugaloon ko fii it ci biir ngir bu ñu xëyee ñu génne ko ñu déposé ko seen borom. waaw lii moom sant yàlla rek nañ ko sant yàlla. ndax ndogalu suñu borom la. yàlla moo moom jaam ji moo koy defal li nga xam ne moom moo ko soob gannaaw yàlla moo ko def nag nañ wakkirlu ci yàlla ñaanaat yàlla jégluwaat yàlla waaye nag ñu seetaat bu baax yenn bagage yi nga xam ne ñu ngi koy def ñu seet lu baax buñ koy def ñu def ko fa nga xam ne dafa wóor ndax ay fil kat boo koy lii da ngay toppatoo fa nga xam ne kat danga nga koy saytu mu bañ a ànd ak ay weñ ndax weñ kat àndut ak ak fil ndax fiil moom ganaaw weñ yaa ngi ci nekk te mu ngi maas mënoo koo xàmme ganaaw électricien bi moom day dëkk ci biir mënu taxam luy maas asika ki nga xam ne xamul ci courant dara waaw bu lakk bi di am nag fekkoon na yàlla def na ki nga xam ne moo nekk ci kër gi doomam bu jigéen bi jëloon na ko mu yóbbu ko marché ànd ak moom kii nga xam ne mooy borom këram jëloon na doom ju góor ji mu xëyoon nag moom àndoon ak moom dem atelier dem liggéey man rek man maa desoon ci kër gi bu lakk bi di am Modou njaay laa tudd waaye nag ngeen sant sappoor gërëm leen lu tax ñoom bu ñu leen wooyee ñu yéex moo di dafa am ñenn ñi nga xam ne ñoom ñooy woote di caaxaan xam nga nga woot nee ko lakk am na naa nga mbala muus ak xaj ñu ngi xeex loolu tooñ la nañ bàyyi loolu ñu ponk sappoor yi te ñu ñaana leen yàlla yàlla may leen fan lu ndax ñii ñu jara sant lañ